ñu amoon fi gan gu mag gu doon ñibbi gu doon ñibbi ñu àndoon tabaarakallahu eh, gunge ko muy cheikh Mouhamadul Bachir Taal cheikh Mouhamad Bachir Taal di xalifa eh, cheikh alxaaji Omarul Fuuti radiyallahu tabaraka wa taala anhu yàlla xam na ni ci mbedd mi lañu nekk nii di def ak yéen waxtaan wi xam nañ ne suñu xaaree ba àgg kër ga dina xaw a guddi torop <clears throat> ñu ne ah, nañu pullover rek e, defu waxtaan wi tabaarakallah yan nañu yàlla boole yombalal defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin ah. Ceerno eh, Mouhamadul Bachir ku baax la góor gu góor gu baax la waaw góor gu baax a baax ñun nag yàlla daf ko nattu ci ñun ñu jees rek bëgguñu ñu xam nga ñun ni ñuy ñàkkee fayda ku yàlla nattu ba nga bëgg ñu rek tawarkal la waaye nee ñu boo boo sàgganee loo sàggan sàggan fexeel ba benn bu yàlla xoolee sa xol gis ca waliyoom rekk mu def la waliyu wala mu xool xolu waliyu gis la ca rekk mu def la waliyu yal na ñu yàlla booleel ñaar yëpp te def ñu dëgg-dëgg waliyu ñeel ko yaa rabbi suñu bind tey mooy ñeenteelu atte ci atte yi yi ko jóg al ahkam alcharciya altaklifiya tuddoon nañ ne juróom lañu alwaajibu walmustahabu walxaraamu walmakruhu waljaizu jàngoon nañu waajib ak ay xaajam ak lenn ci ay masaa'ilam jàngoon nañu mustahab ak ay xaajam ak lenn ci ay masaa'ilam démb jàngoon nañu xaraam ak ay xaajam ak lenn ci ay ilam tey ñu bëgg a jàng ak yéen rakki xaraam mooy almakruh almakruhu ci luga mooy al mubgadu luñ bañ ci istilaax ulamaa il fiqhi nag mooy maa naha anhu shaaricu laa ala wajhi <coughs> laa <coughs> laa ala wajhi l ilzaami bi tërki mooy loo xam ne aji yoonal ji ki yàlla tere na ko waaye du tere waral ñu ba du tere goo xam ne dafa waral ba gi ni ki lekk di sukkandiku wala lekk lu mel ni soble walla laaj dem ci jàkka ja wala nelaw balaa wala waxtaan waxtaan woo xam ne duut waxtaan wu am njëriñ gannaaw ga gannaaw gee yooyu yëpp dafa dugg ci xeetu luñ sib ci sharia atteem nag mooy boo bàyyee liñ sib ngir ne yàlla bëggut ko danañ la ca fay yiw soo sàgganee ba def ko it kenn du la ca topp maanaam bàyyi ngir temmoo ndigalu yàlla dana bijj xiw waaye toggoo ga du bijj mbugal yuthaabu taarikuhum tithaalan wala yucaaqabu faaciluhu pour mu gën a leer ñu indi ci ay masala bu njëkk bi mooy buñ ne makruh mooy loo xam ne dana yool ki ko bax ngir ndigal waaye duñ mbugal ki ko def léeg-léeg nag ñu gis baatu makruh ci texte yi te du firi makruh maanaam baatu bii ñuy wax makruh istilaahan léeg-léeg alquran jëfandikoo ko wala sunna jëfandikoo ko wala lenn ci boroom xam-xam yi jëfandikoo ko te fekk jubluwuñ ci luñ sib waaye xaraam lañ ci jublu loolu it lu mët bàyyi xel la maanaam baatu makruh Euh, généralement mooy lu ñu sip waaye léeg mu ñëw nag fekk lu xaraam lay lu ciy misaal nañ jàng suuratul xujuraat laaye juróom-ñaar buur ne wa karraha ilaykum al kufra wal fusuuqa wal isyaana yàlla bañ loo na leen kéeféer ak ak kàccoor ak mooy yàlla kurhu foofu xaraam la ak kéefeer dafa xaraam jëfi génn topp dafa xaraam mooy yàlla dafa xaraam ak bu ñu jàngee sóoratul Israa laaye 38 sama boroom dana wax ne kullu dhalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruha baax na boo ne sayyi'atan baax na ñaari njàngin yëpp baax na yàlla dafay tudd ay yëf ba ba muy jeexal mu ne yii ma tudd yëpp ñaaw téef la wu suñ borom bañ makro foofu firiwut luñ sip waaye lu xaraam lay firi wala tamshi fi l maraxan innaka lan taxriqa al arda walan tabluga al tuulan kullu dalika kaana sayyi'atan inda rabbika makruha réylu ci kaw suuf ak ko jiitu yëpp doo wax ne dañ koo sib karaahata waaye dafa xaraam gis nga niñ ko waxee sànq suñu ilimaan yu jiitu ya seenu càmm tax na lu bari dañ daan indi baatub cibeel ngir ragal la tudd baatub xaraam waaye fekk xaraam lañ ca jublu ngir seenu càmm ñu bari nag ci ñu mujj ñi bu ñëwee gis baatu karaaxa rek ñu ne Malik daf ko sip fekk jubluwut ci woon sibuk cibeel rekk waaye dafa doon ragal a tudd baatu xaraam ndax noonu lañ meloon imaam Malik ku ragaloon wàllu eh, iftaaw la muy fatwa waaw ah, ñu mel ni ñoom Seydina Uthman ak saxaaba yu mag yeeg ñoom alqamatu ñu ragaloon lañ fatwa mu ne yéen nag dama gis ngeen ñeme ko Euh, naka la tuddati góor ga euh, maana euh, saxaaba yi waaw ca Madina wax nañ ne daan nga fekk ñaar téeméeri saxaaba ci jàkka ji masala bu ñu indi ku nekk ci ñoom da koy jañ morom ko pour mu tontu ko tey nag ku nekk yow yaa bëgg a wax ne yaa bari xam-xam yal nañu yàlla boole musal imaam ibnu Qayyim al-Jawziya tudd na njuumte googu di dal al mutaaxiroon ñi mujj ñi ci jaawale e, baatu karaaxa foog ne mooy loo xam ne luñ sib la rek ci waxi mag ñi te fekk ne jubluwuñ ca loolu tudd na ko ci téeréem bu e, mag boobule ilaamul muwaqiin ñaareelu masala mi ci wàllu makruh mooy al ahnaafu waa kër abu xanifa makruh ñaari façon lañ ko déggee mooy makruh karahatan tanzihiyatan ak al makruhu karahatan tahrimiyatan mu delluwaat ci suñ bindub démb ba loo xam ne dañ koo sip mu yore àtteeb luñ sip nii ñu ko Euh, naka la tuddati définir ak luñ sib sib goo xam ne cibig xaraam la duut sibuk sib rek ndax ñoom lépp luñ sib te mu am dalil qat'i mooy alxuraan la walla suna mutawaatar mutawaatara wala mutawaatira yépp baax na bu fekkee alxuraan la wala muy xadis boo xam ne lim bu mbëree bëree ko solo ci ci euh, niveau chaîne bi yëpp buñ waxee buñ utiliser baatu makruh tamit lu xaraam lañ ci jublu ni ki nga xamee ne baatu luñ tere niñ ko jàngee woon démb bu fekkee ne niveau boobu la am lu xaraam la bu dee karaaxa bi nag dañ koo dafa nekk dalil dafa am dalil nii mooy dalil boo xam ne ko jug jortu la mooy ñu wax ci làmmiñu shaariu ni sib nañ muy sunna te fekk du sunna mu tawaatara ñoom dañ koy jox catégorie sib bii nga xam ne mooy loo xam ne soo ko defee doo am bàkkaar waaye soo ko bàyyee ngir tem mu am tiyaabo muy même définition bi ñu joxoon xaraam ñoom lu ñu xaraam bi dalileen qat'iyin ak lu ñu xaraamal lu ñu xaraamal bi dalilin qatciyin ak lu ñu xaraamal bi dalilin zanniyin ñetteelu masala mi ci makruh moo di makruh dafa am ay daraja makruh bi ñu tudd tey ci istilaaxu nga xam ne boo ko bàyyee am tiyaabo soo ko defee am bàkkaar ab astaghfirullah soo ko defee doo am bàkkaar waaye soo ko bàyyee ngir topp yàlla am tiyaabo dafar dañoo rawante dañoo gën a am dañoo ëppante daraja dafa ci am boo xam ne moo nekk ci suufu boo gën a suufe ci darajaay cibel daanaka si buñ ko ak loo xam ne moo nekk ca kaw darajaay sibel misaal ci boo xam ne moo nekk ci kaw darajaay sibel moom la ñuy tuddee almutashabahaat wala almutashabihaat yi li ciy tegtal waxi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ca saxiixu muslim xadiisu nucmaan ibni bachir yonentu sallallahu alayhi wa ne inna alxalaala bayinun li dagan leer na naññ wa inna alxaraama bayinun li xaraam leer na naññ wa baynahuma mushtabihaatun laa yaclamuhunna wa baynahuma mushtabihaatun laa yaclamuhunna kathiirun min annaas seen diggante ñoom ñaar nag xalaal ak xaraam way lëntëng ci yoo xam ne li ëpp wala lu bari ci nit ñi xamuñ ko mu ne faman ittaqa shubuhaati istabra'a li diinihi wa irdihi teet sori yu lënt yooyu mu ne protéger na setal na diineem setal na deram wa man waqaa fi shubuhaati ku dëgër bopp nag ba tàppi ba tàbbi ci yu lënt yooyu waqaa fil xaraam ala fokk dana tàbbi ci lu xaraam walla lu gën a bari dana tàbbi mu joxe misaal mu ne ka raaci yarca xawla alximaa yuushiku an yartaca fii kuy sàmm bàyyi ay xaram ñu nekk ci wetu toolub jàmbur domaine réservé wu jàmbur nee bu moytuwul rek xar yi danañ ci dugg ndax xar yi buñ seetee domaine réserve ba gis ñax ma gis gàncax ga gis nangam nga rekk duñ ko mën a muñ kuy sàmm gàtt daal bu bañee dugg ci toolu jàmbur na ko sori mu ne alaa wa inna li kulli malikin buur bu ne am na domaine réservé alaa wa inna ximallaahi maxaarimuhu mane ne domaine réservé wu yàlla mooy yi mu xaraamal alaa wa inna fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa ida wa hiya alqalb ma ne am na ci yaram lumb boo xam ne su jegee jëmm su yàqoo jëmm ji yëpp yàqu lumb boobu mooy xol li koy jagal mooy ne ci li baax wëttu lu bon lépp lu lënt nga nekk fa teg nga teg ko fa ni tege ndax boo ca duggee rek tabaarakallaahu mën na laa yóbbu ci lu xaraam ñu ne loolu nag mooy daraja ji gën a kawe ci darajaay yiñ sib ndax moo nekk ci barrière xalaal ak xaraam ñeenteelu masala mi ci masailul karahati mooy al makruhu bil juz'i yaxrumu bil kulli lu ñu sib cib xaaj dafay xaraam ci lépp ana loolu mooy bu ne nangam sib nañ ko it mënoo continuer di ko def soo continuer di ko def rekk mu xaraam ni ko imaam bi waxee ca almuwaafaqaat mu ne fa laysa lil abdi an yatamaada fi lmakruhaati bi xujjati annaha makruhatun jàmbe amul droit continuer du def luñ sib ngir rekk ne ah lii luñ sib rek la mu ne wa inna tamaadiya fii daalik xaraamun kontine ca loola luñ sib nga koy répété di ko répété waat mu ne lu xaraam la maanaam luñ xaraam ci xaaj lu luñ sib cib xaaj laa bëgg a wax dafay xaraam ci lépp sib nañ gaa nga def ko benn yoon ñaari yoon boo ko continuer di def rek mu xaraam ndax jaam bi amul droit doyadal yi sama borom sip ndax doyadal yooyu ba nuur ca moo lay yóbboo ci yi xaraam yu xaraam mooy yu mag yi te boo dajalee yu ndaw yu bëri rekk mu mag wax naa ca benn bayt ne laa taxqiran laa taxqiran saxiratan yaa man asaa innal jibaala asluhu min al innal jibaala asluha min al xasa laa taxqiran saxiratan yaa man asa bul bul xeeb mukk mooy ba ah lii lu lii ndaw la montagne boo gis ay doj yu ndaw lañ boole rek ba mu nekk montagne yal nañu yàlla boole musal ci mooy suñ borom subhaanahu wa taala juróomeelu masala mi te mujjee ci masailul makruh ni nga xamee ne mustahab muqaddima la ci waajib makruh tamit muqaddima la ci xaraam maanaam yiñ sopp mooy lay taayal yi war foo fekk koo xam ne du sàgganee naafila naafilay julli du sàgganee julli farata foo fekk koo xam ne du sàgganee naafilay koor du sàgganee weeru koor naka noonu tamit makruh mooy lay taayal lu xaraam foo fekk ku baaxoo di def yuñ sib lu ñu wax rek nga ne ah araamul dañ koo sib rek ci lu xaraam la jëm te bu koy répété sax moom ci boppam luñ sib ka dafay mujj nekk lu xaraam la dafay mujj nekk lu xaraam niñ ko leeralee léegi ci masala ñenteel mi ñu ngi jéggalu ci qualité enregistrement bi di ñaan suñu borom mu boole ñu defaral suñu zaahir ak suñu baatin di gërëm encore suñu admin yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te di ñu yokk jom yal na yàlla baaxalal ñu ci biir baaxalal ñu ci biti aar ñu ci biir aar ñu ci biti boole ñu ci xulafaa u mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa fi dunya